face. Façon. Ouais. Euh, viens ici avec moi. <laughs> eh mon bébé. xëy na émission bi rek a des rangé naa sama bagage yi. mbaa noppi nga. waaw bagage yu bëri fii laa koy bàyyi. c' est fini sama yóbbu fee boo demee lépp nga fa. waaw loolu de mais c' est fini rek. waaw c' est fini. yow pare ko itam lay xaar. non je je me laisse tout de suite rek man moom euh, y' a pas de kii. waaye gaawantul waa gis lii mënoo ko subbi fii dafa tàng. déedéet da ngay anticiper. déedéet da nga waroon solo oyof euh, comme man. boo déggee ba foofu ci aéroport bi réew mooy dem. waaw boo duggee ci avion bi rek commencé à dund réew. day sedd am yooyu fàtte naa sax yow depuis fan yii moom ngay dund. kay psychologiquement li ma la mën a daal mooy ràññeeku nit ki da koy fonk. waaw da koy fonk de. ku ndul xaar da xaar. te way sàmm. waaw kooku. yow yaa réer. parce que dans sa monde si petit. yow dëkk bu ndaw bii nga yaakaar ne nga maa mat na une semaine ma di la wër. ñëw naa fi fekk sa jëkkër muy ndekki waaye léegi nag mu ñàkk fayda naan yëngalal ma jàppal ma yaa xam ne yow moom soxna neexee nga yëngalal xam nga lu ma la bëgg a xamal eh. ñàkk fayda mun laa xam nga ko mu ndox xam nga la laa la bëgg hmm. man aw ma daal lu may wax ak yow va répondre lii lan la lii lan la ah. ah lii lan la yow lu sa yoon cogg gi nga doon koy wax cogg boo ko liiree di nga xam lan la yow lii lan lii lan li ma xool lii lan à la police boo demee nga répondre foofu foofu la mbaxana police loolu ngeen di findi fee provocation waaye du fii de. waa kii wér na. yow xanaa da ngaa fàtte. convocation. ñun du ay sénégalais léegi de. ay italien la. yow bàyyi kii du convocation maanaam. eh. policier sénégalais bu ma soxla fekk ma itam man duma Assane Diouf de lu leer naa. Assane ak yaa am fit. Ah, pour wax la ko dafa sew dafa saf man yow lay wër. <laughs> wuy ma ñamal ma benn boobu noonu ba pare. mooy boobu noonu nga ma ñamaloon fan yi paase. ah waaw waaw rëm tëm bi tëm rëm tëm bi tëm rëm tëm bi tëm rëm tëm kanaba pandi ay waay bi bi na pandi rëm tëm bi tëm kuri ba bosi bi na pandi bi na pandi kuri bi na pandi kanaba bi na pandi kuri mi no bosi bi na pandi bi na pandi kuri mi bi na pandi kanaba bi na pandi kuri mi na bosi bi na pandi bi na pandi rëm tëm bi tëm loo nekk. waaw. yaa ngi jàmm. yaa soxla woon de. mbaa jàmm. jàmm ak salaam. sama tànk nag tànku leen lu dul gor ca wax ca daa am lu ñu waxante woon te man boo ne maa jàkk xam ni deretu góor bii lay daw ci man yàlla nag dafa bëri sutura ndax borom xoru aéroport yi yàlla da leen defal sutura fu ñu toll. xale mantu kuy sa yaay maam jaara faal loolu rek jooy na ndam 400000 laa la amee loolu ne leen di laa tegal 100000 lu ma wax def ko muy 500000 ëpp na ah soo bëggee dégg dëgg de kontaan naa xamal sax xam nga ni moos ma ñëwee sa kër di la àgg wala mu lay pobar ba ma am leen lu ma lay wax sax xamal ne rek damaa meroon ndax xaalis bi dadu sama xaalis xaalisu jàmbur la jàppewu la ko laaj ma lu tax su ma la ko jàppee woon 100000 li ma ci teg du ma la ko ci tegal <laughs> wax joo gis am na ku muy seet dangaa baax yaay te nit ku nekk danga am loo koy seetee kuy sa yaay Marème Dieng nga jël ko ba jël turam kon mënuma laa wax leen ñëw nga sama kër nag ma yàgg famille tamit jaru ko parce que sa yaay sama yaale te dama koo bëgg biir génn bagaas ga ay ay ay ay nabar nga léegi li ma la ko waxee. rendez-vous respecté góor gi patrimoine la day def. lii bu mu ñu topp waaye tamit patrimoine la. patrimoine mooy lii du jaar si aéroport yi bañ a jaar aéroport ay kaña sax dañ fay jaar. déedéet yow tam bàyyi li ngeen. aéroport lu ne fay jaar. lii ci dugg ci réew mi la. ah cosaan tubaab yi bu ko gisee sax dund la ñu ñëw. waaye yow lii mu mel ni mu mel ni tey ñu bokkataan ni. voilà waaw dégg naa non nee non nee. non nee non nee yow xam nga ne maa la gën a sadik foofu. yow sadikoo man ngay jaay sadik yow. yow xam nga ne da ngay sadik sadik loolu doo ci dara yow ah. Hmm? bonjour non Bella dana la bee la bee réew ma. kuur gi la sonal. déedéet sonal ma mën naa ko seet. ala. ital waaw léemu ma nag. eh bonne chance. faa yaasin maa yaasin. toccamtu doccamtu. ngërëm yàlla mën tas kaw ci kaw bokk kaw ci kaw kër yaa di ko ko am suñu kaw. kuufatam kaafatam diwlu. maa ngi lay maa ngi lay bon jour. avancé dama dama tukki ba ma egg Italie da ngay da ngay toog léegi da ngay wax <laughs> léegi loolu fi la kër ma daal nit ku ne daa am loo koy rusee ñëw nga sama kër xasee ma nu ne fekk ma ma toog def jekk nga naan ma sa wat eh, sayu dang bu fi fàttali loolu mënta ñàkk nag loolu passé na ku dul fàttaliku doo góor te <laughs> laa nga xas ma ba ma rab waaw mais mënta ñàkk fàtte xaju fi heure bu baax bi demagul nga ñëw fekk ma ma toog nga naan ma xool ma sa yu dang xool ma ak sa wat xanaa xamoo jéeg piir day bëri pax sama wujju bee toll ni nagu dëj bu meloon ni bu meloon na mu war a mel may ma bu ma dagg may ma tuuti man fu ma neex lay génn su ma neexee def balaat saf jéeg piir su ma neexee def Fatou Lawbe su ma neexee saf Shakira su ma neexee def Beyoncé yamuma benn place rek da laa yërëm mhm. ak sama wujju waaw ah, ma mujjee ak moom ci lan ah ñu ko ca kër ga rek ne denc waaw kooku du dem ndax sama nijaay chaque jour mu ne ma bàyyi ma fase ko man ko bu ko fase day yomb waaw xam nga lu tax gis nga sa noon dëgg da ngay xëy saa yu xëy di jàkkaarloog moom di ko torturé mhm. ba salaatul xayri minal naw na ko demal dëgg dégg nga këpp loo mbalit nag te sama nijaay yi ngi bëgg a dee de laaj ma lu tax mm. saa yu ayee ci moom ah wuy day mel ni bàccum gerte <laughs> su ayee ci ma naan ma mant <laughs> mant bàyyi ma fase ko nagu dëjëg may rey ma ne ko mant bu ko fase mm-hmm. maa ngi fi pour di la maase kooku ci kër gi lay ne ma di ko torturer di ko torturer ba mu xëy am cardiaque. comme acakay. maa la ko wax waaye nag keroog nekk ma dag maa bàyyeeg moom de. xas na ma yow nag tamit passé na nag xadi yow it génnal ci lool rek maa Go, go, go, go. Makar. Go, go, go, go. Dawal nga, dawal, dawal, dawal nga. Yéeg, yéeg, ba ñëw, dama ci ginnaaw. Dawal, dawal, dawal. Come on. suufu